Euh, c'est une histoire longue histoire nga am ak coopérative des femmes agricultrices de la commune de Ronkh donc ci xalaat mise en œuvre ba ci assemblée générale ya donc ba ci euh, li nga publicité vraiment yaa ngi bu baax salon bi euh, coopérative des femmes agricultrices ku wax agricultrice euh, ci walu production yi nga xamante ni mooy ci wàllum euh, surtout euh, ceeb ak maraîchage mais ceeb bi ñun am nañu suñuy membre yoo xamante ni tey ñu ngi ciy bay mais maraîchage bi tey dafa nekk loo xamante ni tey moom la ñu gën a yëngatu tey jii boo xoolee produit yi ñu fi indi tey lu demee ni ki gombo indi nañ ko lu demee ni ki piment indi nañ ko donc indi woon nañ yeneen produit yoo xamante ni sax dañ ko jënd mais mu nekk loo xamante ni tey jigéen ñi dañ leen ci war a jàppale parce que si nous avons souveraineté alimentaire, non seulement du Kiev Kessé, mais les, les, les produits horticoles, nous devons faire des choses. Parce que si nous avons des choses,

naan rendement yi dañuy nekk en baisse mais ñun de bi ñu duggee ci maraîchage ba léegi dañuy gis suñu rendement dafa nekk en hausse lu tax loolu man dama gis ni euh, c'est parce que ñun dañuy respecter li nga xamante ni mooy les bonnes pratiques agricoles donc à travers des formations yi nga xamante ne suñuy partenaires lu demee ne Nafoore ak waa dooleel mbay dañuy ci jàppale bu baax nga xamante ne tey dañuy def ay formations ba nga xamante ni les bonnes pratiques dañ ko xam ba pare di ko appliquer kon man tey damay jàpp ne ñun suñ ñu jàppalee rek autosuffisance bi nga xamante ne dinañ koy wax ci wàllu yi nga xamante ne mooy produit agricole ñun mën nañ ko assurer donc euh, mu nek lo xamantene tay défi la won mais ñun ñong koy relever les femmes de la commune de vraiment ñu ngi ciy bay sen waar ñu am ci une bonne productivité bu ma jëlee rek ren gombo bi rek ñu ngi ciy presque bo bayé presque un hectare rek mën nga ci génne 12 tonnes Manam bu ñu évaluer selon la ñu kii nga xamni kon lool chiffre d'affaires la bo xamantene ça peut être des millions mën nga ci génne 10 millions wala 12 millions ci ben hectare donc loolu mu doon loo xamante ne mënuñu ko imaginer mais loolu damay ñaax producteur ñi nga xamanteni ño nek ci walu maraîchage bi ñu respecter les bonnes pratiques manam semence yi nga xamanteni mom moom utiliser ñu nek ay semence yu bax nañu def préparation du sol loolu dafa nek lu am solo lo xam dañ koy bàyyi préparation sol donc nga def aussi la prévention sur des maladies parce que garab moog nit ñoo yam nit day fièvre. garab day feebar nit bu balaa muy feebar mën nañ ko defar prévention garab tamit dañ ko war defal prévention alors que ñun béykat des fois loolu dafay nekk suñu jafe-jafe léegi nag défi la boo xam ne jigéen ñi ñu ngi koy relever loolu moo tax tey damay woo ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci état muy ñi xamante ne surtout ñoo yore wàllu coopérative muy monsieur Ba ñu jàppale jigéen ñi surtout la commune de Ronk nga xamante ni tey euh, am nañu suuf am nañu potentialité yëpp la ñu yu war am nañu suuf am nañu ndox am na ñu jigéen ñu taxaw di bay comme ay góor vraiment donc ce que nous vraiment Nous dañu lancer un appel à l'État pour que nous appelions ñu li nga surtout horticulture mais aussi ci la transformation parce que pour yi nga nous ni ñun moom des fois marché bi du ne am problème marché loolu réel problème ñun un problème productivité problème de marché lañu problème am problème marché pour dañ les acteurs tous les acteurs le ministre de l'Industrie du commerce nga avons non seulement ci ñu am ay infrastructure nous adapté pour que nous puissions transformer nos produits locaux pour les valoriser mais aussi pour tamit ñu créer des emplois mais nous dem vers l'autonomisation économique des femmes